jini lam abide rafinda sofe idu bin harite mawdo jini lam abide rafinda sofe kii xool caméra bi kii indi dañ koo ñëw jox ko cër am na loo xam ne du cëram ci lam dëgg la booy bi ñëw na amul kii ñu ko doo dugg booy bi forcé daw daw forcé alkaati tax kii taxaw daan ni booy bi du génn moom mii. loolu la def maa ngi yow taxawuma booy bi du génn non ba Pierre man Pierre yow suma papa nga voilà yow suma papa nga man dama yàq lamb waaye lii su ko defee dafay mel ni dama naan ñun bu dañoo gi daanu wala dañ koy sot loolu dama lay wax rek yow suma papa nga c'est que li nga wax waaw ma laaj leen yow tey bi ngay ci lamb dafa mel ni da ngaa xabtal non non non xabtaluwuma Père non non non non ba li nga wax non léegi rees na li ma xabtal ko jox. yaa ma ko jox xanaa yaa ma ko jox. non non yaa ma ko jox suma papa nga. góor gi suma rakk la. waaw léegi nii laa ci mën a mel dama cee tax xarit. waaw.